di yàlla na yàlla boole jëkk la yàlla na yàlla boo faj jàngoro yi yàlla nu yàlla xiir ci boppam aar ñu ñu fa yàq yi yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule lu yàlla na nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla yàlla boole ci ay soppeem yàlla nu yàlla boole ci ay xejjam yàlla nu yàlla bëgg yàlla bu nu yàlla topp dara dara dara ci lu mu nu war a ak lu mu nu war lu ñu tu ak lu mu lañu lañ mbët suñuy mbir ndax yàlla ko mu si jàpp la kon yàlla na yàlla boole ci soppeem boole ko def ko ci askanu senegal yëpp yàlla sañ nga ko mën nga ko yàlla na ko def mbokk yi ñu ngi woon ak yéen ci Moussa alayhi salaam nag toujours ci nattoom yu bari yi waaye yàlla ko ciy génnee ajuma ji nu génne ñu ngi leen doon jéem a leeral nag wa nga xamante ni waa banu Israil ñoo ko doon seet di wër nag wa na mu mel ba mën koo rendi ndax booba dafa am seen mbokk mu wàcc liggéey mbokk ma dañ koo rey waaye euh, mbokk moomu bi nu ko reyee nee nañu amil la tudd dafa amoon ku ñu wax asara ibnu xayluuq wax naa ko ci ajuma ji mu génn ak samoon ibnu naftaal yi ñoom euh, ay wëlëre lañu woon ay kóllëre lañu woon ñu baax sax ñu leen di jàngi ci yonent yàlla Muusa waaye dañu fasante kóllëre ni asara ibnu xayluuq mii moom nee na sama doom ji bu màggee di Ilyab ibnu asara euh, sama yéene moo doon ne yow Sam'un ibnu Naftali sa doom ji de Rufqatu bintu Sam'un ñu may ko ko fekk na moom Naadaab ibnu Suar ibnu Naftali moom benn rek la ci baayam te bu Sam'un mi génne àdduna Naadaab mii moo war a toog am na ñu wax loolu ci borom xam-xam Suar nag noonu la bindoo ñuy wax lii ñuy wax lii moo tax indil naa leen aamil indil leen tam. Samoun ibn Naftali Nadab mi yàkkamte toog ci nguur gi tax mu kuudetaa d'état euh, baayam bii bi mu ko coup d'état yee yàkkamte toog jël néew bi gàddu ko dem ba ci benn koñ ci biir koñ yi sànni fa góor ga maasale ay tànkam daw ñibbisiwaat ci guddi gi ni xéem daal di toog bi mu defee loolu ñu xëy suba teel yem ci koor bi dëkk bépp jóg waxoon naa leen ko ca émission bay génn bi ñu ñëwee ñu seet mënuñu xam ku ko rey ñu ne ko ne na leen dem ca Moussa comme moom nee na yonent la te yonent dara du ko të na leen ko dem seeti ñu ñëw ci Moussa daal koy posé proposé ni ko nag léegi dañoo bëgg nga dimbali ñu wax ñu suñu mbokk mi ku ko rey ñu daal rek la leen bëgg ngoog euh, surtout euh, boo demee ci alxuraan nag saar wi ñu ngi ko tuddee bàqara histoire bi moo tax ñu tuddee ko bàqara gis nga alxuraan souvenir kese la moom la alxuraan di wax nii wa iz qaala muusa li qawmihi inna allaha yaamurukum an tasbahu baqaratan qaalu atattaxizuna huzian Moussa nee na sama borom nee na su ngeen bëggee xam ki rey seen mbokk mi nee na da ngeen di aw nag ñu ni ko mu muusa danga nga ñuy yéej xanaa da nga bëgg rey yi gën a bari rey yi nga gën a bëgg mu gën a bari ndax nun rey yi nuy rey yëpp ay bakkan tëdd rek suñu mbokk dee na yemoo fa xanaa daal di nii nan reyaat nag ah loolu day wax dëgg yàlla yéeme na daal loolu daal nekkul lu ñu war a mën a jël nekkul lu ñu war a mën a jàpp xanaa da nga ñuy reetaan xanaa da nga ñuy yéjji Moussa ni leen subhaanallah yàlla na yàlla yërëm leen man du ma réer ku réer mooy yéjjee ka xaqataay ak reetaane man réeruma moo tax du ma du may xaqataay kenn sama borom daal nee na na ngeen rey nag su ngeen reyee nag nag woowu mooy tax ngeen xam ki rey seen mbokk mi ñuy xoolante biir bi ba yàgg ñu ni ud'ulanaa rabbaka bay lanaa maa hiya euh, ñaanal laajal ñu sa borom nag woowu waaw nag nu mu mën a mel comme nag rek nag rek buy bu tojul kenn du ko xam xaal Moussa ni leen innahu nag woowu daay sama borom yàqul mi wax ni innaha baqaratu nag la woo xamante ni laa faaridun du mag wala bikrun tam du ndaw awaanun benn zalik ci diggante mag ak ndaw la nekk faf alu maa tumarun def lañ leen seen borom sant ñu ko ni rek di ko laaj rek laaju dingat xam nga rek nit ñaare bari na li na niil ne prophète chez toi juddi fi barab màgge fi barab xëy rek woote na yàlla ma yoon ñu seetaan la yombul de faw nga am ay coonaaki nattu mu ni walaw annahum amalu ila adna baqaratin fa sabahuha ajra la ajzaat anhu su fekkoon na li leen Moussa wax def nañu ko rek seet na gu tollook seen xalaat ak li nga xamante ne moom lañ leen wax rek ñu rendi ko rek te ni pat nee na yàlla du leen sonal kon daf leen di rek fekk ca la ñuy def waaye ñu ko ne rek ñu ko Moussa maa law na wan nag ko nu muy mel ñuul wala wu weex wala wu xonq wala xaal Moussa ni leen alhamdulilah rabbil alamin yaxfirullahu lii wa lakum wa li saa'iril muslimin suñu boroom nee na innahaa nag woowu ngeen di wax baqaratu nag la woo xamante ne safra wu jaune la wu yolet faaqiun bu am taxawaay law nu ha tazurru naadirina boo koy xoolee da ngay bég ndax na mu taaroo moo tax couleur bu bu jaune lu am solo la boroom xam-xam yi surtout nag Seydina Ali karamallahu wajhahu doon na digle trop ci sol couleur bu bu zone lu tax nee na euh, man man labisa naalan safra qalla hammuhu li anna allah taala yaqul faaqiun lawnaha tasuru nasirin moo tax lu zone couleur bu porte bonheur la couleur bu am solo la qaalu udoo lana rabbaka woowal ñu sa boroom ñaanal ñu sa boroom yu bàyyi la naa mu leeral ñu maahiya ñun daal ba léegi xamaguñu nag wi innal baqarata tashabaha alayna nag wi daal dafa lënd ti ñun wa inna insha allahu la muhtadun vraiment daan def li nga wax mais waxaatal ak moom rek mu gën a mu gën a ainsi préciser nag wi nu mu war a mel mu ni leen innahum nag wow yàqulu sa borom mi wax ni innaha baqaratun aw nag la la zalulun firul arsh wala tasqil xars nag la woo xamante ni dafa rafet mucc ayib nag wa du nag wuy bay du nag woo xamante ne nii day day day day root ay teen di xëcc ay ay ay bërigo ci teen bi déedéet musallamatun nagu mucc la laashiyatun boo xamante ne mucc la ci ay ñaas ak i gaasiraan ak ay dóor déedéet nag woowu daal bariatun min al uyub nagu mucc la ci ay ay ayib xaaluñu doon nga al aana léegi kat xaq wax nga dëgg kon nag yow Moussa wax nga dëgg waaye gis nga soo gisee mu jafe woon ci ñoom ñoom ñoo ko jafeel ndax yàlla kenn du xëcc ak moom bañ leen reyee nag rek dañu waroon ni pat bañ a laaj moo tax jullit yi toujours na ngeen bàyyi xel euh, léeg-léeg ci diine ji yàlla yombalal ñu lool waaye creuser ak gas gas ak xóotal diine guddal euh, ak di mudile dana tax nga dema dema dem mu metti lool ci yow moo tax euh, Oustaz Alioune Sall dina faral di wax wax bu am solo te der na bàyyi xel mooy nee na dina wax ni nee na ku bari ay sëriñ jaaxle ku bari ay conseiller dof ku bari ay médecin dee ku bari ay sëriñ jaaxle mooy soo laajee Iran Ndaw mun na lii nga xool Alioune Sall mun na lii nga dem ci Tayib Socé mun na lii nga dem ci seen Diop mun na lii nga xool Abdou Fattah Sall mun na lii waaw boo gisee Maodo dafay mu ne léegi nag ban nga ci war a topp loolu ngay dégg léegi ku ne mu daal ah, dama dégg ci benn ustaas ci benn rajo mu lii mu ne laa mu bëggoon leer nag ba xam ban laa ci war a topp parce que yow yaay seet rek ki nga jàngaleem doy na la nga jàpp ca te rafetlu ñëpp nag te respecté ñëpp ndax ñoom ñëpp amu ci kenn koo xam ne dafay wax waxi baayam wala waxi maamam waxi yàlla rek la ñu jéem a wax te it liñ ci déggu la ëpp liñ ci dégg kon nit mën na cee juum waaye nag seetal rek na mu gën a jàppande yow te muy loo gëm te sax ca rek incha allah bu yàlla dee fay dana la fay waaye bari sëriñ dégg na sëriñ sàngam ba ma demee ca sant ga ba ma demee ca kuréel ga ba ma demee ca gàmm ga ba ma demee ca conférence ba ba ma ne lii lañ fa dégg lii lañ fa daal yooyu yëpp du laaju xam waaye laaju diingat rek la te yooyu amul njëriñ amul benn solo ne na ko bari conseil jaaxle mooy président bu la ëppi conseil moo la gën a am problème ndax da ngay dem ci conseil bii mun la nangam nga dem nga ñëw ci conseil bi mun na nga te conseil yi ci ëpp li ci ëpp ñoom seen xalaatu parti lañ lay wax yàlla ko wax yàlla nee na la taaxusu la taaxusu bitaanatan min dun min ko bu leen jël conseil yu bokkul ci yéen yéen waa diina ji mooy jël conseil jëlal ab julit ne yow loolu nag dafay jël conseil koo xamante ni ndamam sa mooy ndamam sa réussite mooy réussir am koo xamante nii sa gàcce mooy gàccam bu doon dee genn la mu nangoo tëdd dee te fekk na yow nga mucc kooku mooy kii jafeñ ci conseil yi mooy ki jafeñ ci àndandoo yi waaye koo xamante ni fi nga toog la bëgg a toog bu sañoon nga am échec bu sañoon nga yàqule bu sañoon nga daanu nga def ko conseil ngeen ànd guddeeg bëccëg léeg-léeg mu conseil la ndëgg sërëx goo xamante ni boo nga amul liggéeyu ndey dëgg ma la nga am ñaan boo ca daanu dangay ngay sóonu donc loolu dafa jar di xoolaat alquran ko wax nag waxuma lenn nag li ma wax lépp ko wax laata ta'xuzu bi tanaatin min dunikum ilaa aaxiri aaya yër leen ko di ngeen ko fa fekk mu ngoog euh, ñu ni ko nag nag waa ko mucc la ci ay ayib nag waa daal léegi wax nga dëgg daal ñun daal dañ dem xool nag bi mu ngoog kon euh, li ma wax ci jafeel bu kenn jafeel boo yoromal leen rek waxoon naa leen li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ca ajjuma jële ñu génn yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku dee wax baatu laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah di nga dugg àjjana benn waay jóg ni ko waaw bu sàccee wala mu njaaloo nag yonent bi ne pat yonent bi ne maa ne képp ku wax laa ilaha illallah muhammadun rasulullah boo dee dugg àjjana mu ne waaw bu sàccee wala mu njaaloo nag yonent bi ne teg bu mu wax ko ñetti yoon yonent bi ko walaw saraqa walaw zana bu sàccee wala mu njaaloo sax su buuxul ma leen bàyyi leen dangal bàyyi leen creuser gës bu ngeen gasee yàlla gas bu yàlla gasee du ngeen ko mën a suul kon nag mi ngi noonu addiinu nasiha waaw waaw innama yuridillah an yuzhiba ankum rijsa ngoog kon nag ñoom bi ñu ko jafeele euh, yonent yàlla Moussa taalibe yi euh, maa ngi lay wax léegi ci wàllu commentaire bi ni la bàyyi leen dangal ndax sëriñ ak taalibeem toujours buñ ne wow na rek nga ne koŋ buñ ne ñuul na nga ne kukk buñ ne weex na nga ne tal buñ ne tooy na nga ne xib loolu mooy li am solo maa ngi leen doon nettali ajjuma jee paase alaaji bi saaxu taalibeem ba nga waxoon naa leen ko <laughs> am solo la euh, wax nañ tam li tax discours ba yàgg discussion ba yàgg am na cause ndax Abdullah Ibn Abbas nee na dafa amoon genn góor gu baax mooy li ma doon nettal léegi ci Sam'un Ibn Naftali amul wenn nag ak benn doom ju góor Sam'un moomu Ibn Naftali nag woowu mu amoon maanaam maanaam kii Azara Ibn Hayluq laa bëggoon wax nag woowu mu amoon nag comme dafa amoon doom ju baax doom ja nekk ku bëgg ñaari way juróom diggal baayam lool nangul yaayam lool am ci ñoom yërmande te waxoon na ne doomam ji bu màggee dinañ ko may rufqatu baay bi nag tollu ci sukuraat war a faatu ci la woo yaay ji ne ko ah, ginnaaw ku dem mag dem ku demul mag dem dama la bëggoon defal testament ndinkaan ginnaaw ba mu ni ko nag suma faatoo suma doom ji wenn nag dong laa ko amal nag woowu nag na ko bàyyi ba mu majeur ba xàmmee xaalis mu ci ci yàq ak pakk-pakki jamono bu boobaa ngeen jox ko nag wi daani ko ñaan ñaanal ngeen ko yàlla na barkeel bat bu am solo ngoog yal na barkeel mun na ñaanu baay du tak mukk rawatina ñaanu yaay yal na barkeel mu daal nag ni ko nag yi mag may dénk ca àll ba joxuma ko ay sàmm joxuma ko ay pël joxuma koy séeréer joxuma ko ay wolof ci loxo yàlla laa ko teg bu demee ba majeur ba màgg incha allah bu demee na na na na ko laaj yàlla na taxaw ca montagne ba daal ni yow ndénkaane yàlla li man mi la moom ñëw naa ma bëggoon nga ñëw fii sama kanam ma yóbbu la jariñoo la xale boobu nag xale bu baax la mooy Iliyaab ibnu Azara xale bi danaan tarbiyu ay juróom rek guddi gi rek xaaj ñetti xaaj beneen bi day nelaw bi ci des mu nekk ci service yaay ji ak baay bi bi ci des <coughs> mu def mu jox ko sunu borom subhaanahu wa taala alhamdulilah rabbil alamin mu jox ko sunu borom ba fajar ba fajaree mu jóg enseigné dem ci àll ba di taxan taxan mooy wut mat takk ay say yu bari ñëw ci marché bi di ko jaay su ko jaayee mu jël xaaj bi def ko ñetti xaaj benn bi da ko jënd lu mu lekk benn bi mu jox ko yaay ji li des mu saraxe ko loolu moo doon liggéeyu xale bi moo tax ñu ni kaana baaran li waalidatihi ku baaxoon la ku amoon la ku ameel cofeel la ci ñaari way juróom yooyu rawatina yaayam jooj mu fekk na baay bi comme nag woow rek la amoon bi yàlla dogalee baay bi faatu nag yaay ji wax ko ci dara ko bàyyi rek mu continuer muy liggéey di dem di dem di dem mu wóor ko ne léegi kat majeur loolu dana am solo xam nga doom ju jigéen bàyyi ma koy wutal jëkkër waaye doom ju góor itam yaay ma koy wutal jabar ndax yaay moo xam jigéen bàyyit moo xam góor waaja ak ka waaj nekkul benn bari ñoo xam dañoo waaj rek waaye duñu waaja solo ba mel ni janjaari wala solo ba mel ni suppame taxul ngay waaja waaw moo tax ñu ni jigéen bu tolloo ci am jëkkër na ko bàyyam tànnal jëkkër jigéen bu tolloo ci am jabar dama góor bu doole sam jabar na ko yaayam tànnal yaayam moo xàmmee waajkat yeeg sansumaan yeeg toilekat yeeg toiletukat yi ñu ñëpp jigéenu koy xam mu tax bi yàlla dogalee xale bi màgg nag euh, yaay ji woo ko benn bis ni ko yaay bu najj inna abaka warasaka ijlan wa zahabiha ila alxaabati wastawdaaha allahu taala wa alaamatuha annaka ida nasartaha tazuru nasirin ida nasart ilayha tazunnu anna shuaa alshams yaxruju min jildiha li safrai lawniha wa safratiha ngoog fa atal xaaba fa raaha tara fa saaxa biha alfata wa qaala laha azimu alayka bi ilahi ibrahima wa isxaq wa yaqub an taruddanii alayya fa aqbalat xatta qaamat bayna yadayhi fa qabida alayha wa qaadaha fa jaa biha alfata ila ummihi mu tax bi nga yaay ji waxee ko sa baay de yàlla def na wërsëgam yaatuwul woon waaye nag am na ndinkan lu ma dénkoon nee woon na ma it boo màggee ba majeur euh, naa la ko jox wenn nag daal la la jox nag wayit ca àll ba la ko yóbbu dénk ko yàlla mu ni soo demee ba mag ba majeur naa la wax nga dem jëli ko doo dem di sonn nag ci wër da nga yéeg ci montagne bi rekk nga daal di wax daal di yuuxu daal maa ngi giñ ci yàlla di giñ ci yàlla yonent yàlla ibrahim di giñ ci yàlla yi ak yaqub nag bi maa ngi lay ñaan bu dee yaa ngi may dégg wala sa borom bi nga xam ne moom lañu la dénk mi ngi may dégg maa ngi lay ñaan nga ñëw fii ci sama kanam yow nag wi ñu ko noonu nag nag ni pël génn ci gorot yi ñëw ndeysaan di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ba taxaw ci kanamu goos bi ak taa xamat benn yedde taxaw ci kanamu gos bi daal di sukk ñaari bëti woom yi tàllal loos wi wan ko ni ko ah ndénkaan laa woon ju ma yàlla dénkoon kon nag yaa ngi nii may leew naa la doom nee na fa qabida alayha xale bi daal di jàpp te loos wa ñëpp wa qaadaha mu jiital ko eh, indi ko ci yaay ji mu ngi ko indi ci yaay ji yaay ji ne ah, dafa mel na nekk wii la de kon nag sa alal la yaa ko moom yaa ko doon ci sa baay yaay ji ne ko demal nag nga jaay ko xale bi ne ko yaay waaw lu ma koy jaayee yaay ji ni ko loo ko mën a jaayee daal bu mu ëpp ñetti dinaar bu mu ëpp ñetti dinaar bu ko mën a yées sax moo gën ndeke booba nag yu ma doon nettali ne waa banu Israël ñoom it bëgg nañu gis nag wi booba ñu ngi wër nag wi yàlla yabal na mel ne malaaka nag mu ñëw ci daral gi seetlu xale bi malaaka mi yor jëmmi nit ñëw ci dara bi di waxaale xale bi nag nag wi waaw waxaale nag bi goos bi ne ko léegi ñetti dinaar laa koy jaaye malaaka bi ne ko anaa uuti ko man daal dinaa la jox juróom benn dinaa la jox ndax daal bëgguma lekk sa àq am naa danga xamul valeur nag bi wala da xamul nag bi lu muy jar moo tax nga naa ma ñetti dinaar waaye mën daal dinaa la jox juróom benn dinaar Euh, da nga jaay ma nag xale bi ni ko bàyyil ma dem ci sama yaay laaj làkk na sama yaay moo fixé loon prix te lii ma waxit dafa mel ne nuru na kaañ waaye sañu ma koo def te aw ma sama ndigalu yaay ma naa ko ne ah daal booy dem di moom du ma fi nekk di la xaar man daal dama yàkkamti dama soxla nag donc man nekkuma fi ngay xaar sa yaay yooyu kon nag man daal loolu mënuma ko nekk xale bi nag ah bu yeboo man ndigal lay bi lii ma la ko jaay nii sama yaay ma fixé prix bi nii naa la ko jaaye loolu waaye man defuma dara ci sama coobare bopp defuma dara ci sama bëgg-bëggu bopp kon nag booy ba nga bañ ko jënd malaaka mi ni ko waaw kon nag demal comme sañoo ko bañ a jaay te il faut nga laaj sa xalaatu yaay léegi kon demal xale bi daal di wax yaay ji yaay ji ni ko waaw kon jaay ko rek comme ñett nga doon wute neen la ñeen waa jaay ko rek xale bi xëy sa ñëwaat taxaw fi mu taxawoon waaw malaaka mi ñëwaat sol jëm muy yor nekk di mu nit mel na meloon démb xale bi ne ko léegi ah, indi pay waxtaan naa ak sama yaay d'accord na nee na nga jox ma pay malaaka mi ne ko waaw sa yaay d'accord na waaye man ba tey bi ma ñibbi dama waxtaan ak sama xel waxtaan naa sama xel Euh, ba tax na dama la bëgg a tegalaat fukki dinaar ak ñaar dama la ko bëgg a tegalaat lu nga jaay nag bi waaye nag doo dellu ci sa yaay de ndax dama yàkkamti xale bi ne ko ah waaw waaye man nag wax dëgg yàlla ñemewuma def lu mel na loonu euh, def daal lu wuuteeg sama daal mukk amul ñemewuma ko def mu ne ko law aataytani waznaha zahaban lam axusu illa bi ridaha gis nga soo ma joxoon wurus boo xamante nii toll na ne nag wi ak or ak jama wallahi loolu buurul sama bët buur gu tax ma jël nag wi moos di la ko jaay te du ngërëmul sama ñaar sama yaay la ci sama yaay àndu ci ñemewuma loolu man naa ko ah kon baax na kon demal demal nga laaje ko yow daal xam naa ne nuroo doo yow daal doo dem waaw bu doon ci jamono yow daal doo dem yow sa morom yëpp ay nant lañu lii kaañ la nga war cee mën a kaañu am ci ay bagage nga nekk fi naan sama yaay ak sama baay yow yow jamono daf laa raw yow doon nan tey ndeysaan waaye demal te ñëw xale bi nag ñëw ci yaay ji wax yaay ji waa moom de yokkal na ma fukki dinaar ak ni tekk mu ni ko inna zalika rajuli allazi yatika laysa in laysa insanan fi lxaqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa al yaxtabirak fa ida ataaka fa qul lahu atamuruni an abia hasihi albaqar am la fa faala alfata zalik fa qaala lahu almalak idhab ila ummika wa qul laha amsiki hasihi albaqara fa inna muusa bna imrana yashtariha minka li qatilin yuqtalu fi bani israil xale bi ñëw ci yaay ji yaay ji ni ko gis nga kooku li ñëw dama njort ni sax du nit njort naa daal malaaka la walla leneen waaye daal du nit ndax lii ma gis démb ba léegi nga ciy jaabante mu mel ne lu lay xaw a kokkali il y a quelque chose là-dedans mu ni ko nag su dikkee nee ko sama yaay nee na mi ngi lay digal nga jaayal ma nag wi yow ci seen ndigal ndax fi mu ne man xaw ma kumpa xaw ma secret samay dam xamul dara waaye nii nga ci amee laabir ak nii nga ci mel noonu wéyee ndigal rek la xam jaar ci yoon rek la xam kon nag euh, su ma yaay nee na nga jaayal ko nag wi rek ndeysaan fa qaalahul malak malaaka ni ko izhab ila ummik jàppal nag wi nga dem ci sa yaay wa qul boo demee ci sa yaay nga ni ko am si kii haasihi baqar na denc nag wi na ko yeew fu fu bët eggul fa inna Moussa ibna Imrana naka Moussa doomi Imran yi nga xamante ne yàllaa ko yónni ci waa banu Israil ishtariha mink ñu ngi wër nag bu mel ni wii moom moo koy jënd ci yéen mais keroog ba ñu bés bu ñu fi ñëwee keroog ngeen di tàqale ko ak ndóol keroog ngeen di tàqale ko ku ñàkk kon nag. na nga jàpp nag wi lu ko waral li qatilin yuqtalu fii bani israil ndax dafa am benn góor gu mag benn buur bu ñu rey moo indi coow ci seen biir dem nañu ba ca Moussa Moussa ne leen euh, il fa ngeen rey nag te nag wi leen Moussa wax nag woowu moo di ni nag wii nga am yow dong yaa ko am ci tund wi yow la yaa ko ci tund wi sa bàyyi la ko dencal sa bàyyi la ko fàggul yàlla nag moo barkeel nag wi ndax sa baay bi muy dem dafa wax sa yaay yal na yàlla barkeel nag yal na yàlla barkeel gis nga ñaan googu mu la yàlla nangu yow itam jàmbaar nga ndax góor góor góor gi ngay góorlu ci sa baay di góor góorlu ci sa yaay ba tey seen xol sa du guy ci yow yàlla moom it li muy mën a def rek mooy seral sa xol ba sa maas kenn doot la ci tiim seral sa xol ba nga ba nga nekk ca kaw incha allah te loolu soretul léegi rek nga gis ñooñu ñu ñëw incha allah waa ba bani Israël ñii ñu ngi ànd ak muusa di wër rek di wër rek ànd ak Moussa di wër nag wi di wër nag wi di wër nag wi ba ñu tegtal leen fi nag wi ne ak fi nag wi am ñu teg leen ni nag wi daal ci Azar ibnu Xayluq moo am moom nag wi ak doomam la ko bàyyeel nag ak yaayam xale baa ngi tudd Naadab waaw maa ngi wax Naadab sax xale bi. muy tudd Iliyaab Iliyaab ibnu Azara ngoo ko naa daam na moo defoon jëye ji njaajaan njaay gi moom moo rey baay ba moo rey buur ba bëggoon a toog waaye dina ko wexxat ndax dafa fiiroon ci diggante naa naa ak ak rufqatu ndax doomu baayam la te da ko bëggoon takk waaye fiir na ci waaye moo tax ku coup d'état ku nekk da ngaa yàkkam sa wërsëg rek waaye ku yàkkamtul sa wërsëg doo coup kenn. ayca mbokk yi. waa banu Israil agsi nañu waaye bu doon Moussa mi nu àndal daañu def affaire bawol bawol <laughs> wala boobu ma def affaire saalum saalum boobu wala affaire ambila man sa ambila yi mu ñëw laa xam ne nag wii la bëgg ñu finetal saay <laughs> waaye mi est-ce que nag wii la ah eh, nag oh, nag kii di gool <laughs> moom la gaa yi def boo leen dee jaay lu bëgg duñ la woon mukk ni la bëgg nañ ko dañ la ah, eh, kii ma ne kii lu ma koy doyee kii de moom doyee du ma ko dara ah yow yow li nga yoon yi baaxul fekk loolu la doon wër ah, man de xanaa damay yàq sama xaalis dama koy jënd waaye ah, xanaa jënd ko denc ko fii rek waaye gaw mu jar de yi gën jënd ko yow tam yi gën jënd ko muy seng muy bool muy paan muy lu mu ci mën a doon dañ la koy ñàkkalal fayda ñàkkal la ko solo <laughs> sama gars yi ñooy mag <laughs> waaye gis nga bu dee ñoom ñoo ko jënd ba defar ko ba nga dem ba ñu defaraat ko laa ilaha illallah dañ ci laxas jaan gis nga lal yi ngay gis ñu koy jaay ci yenn barab yi léeg la ñu jaay la lal boo xam ni wóor naa la ni dañ la koy jox prix Djibouti bantub Djibouti laxas ci jaan baaxale la ko ba mu yooyu nag moo moo waral moo daloon waa bànni Israël te yooyu nag baaxul daanaka baaxul laa na laaxul bayyaaul xalaaf yéen bi sallallahu alayhi wasallam moo ne yàlla rëbb na jaaykat buy giñ ak di waat te loolu suñu jaaykat yi mën nañ ko trop surtout nag ñi ñooy jaay ay marchandises importé maanaam dàll yeeg yu mel bëgg laa jaay dana tax ñu ne billahi watallahi marchandise mi mi ngi jóge Italie wala mi ngi jóge Espagne wala Dubaï lañ ko jënd démb lañ ko fi indi kenn amagu ko fi waat googuñ ci waat nag yàlla nee na eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee yàlla rëbb na jaaykat buy waat loolu baaxul moo tax jaayaat rek ku ci wërsëgam nekk rek dana jënd ku ci wërsëgam nekkul nag du jënd waaye par force ngeen jënd ma amul fen kon bu kenn giñ bu kenn giñ bu kenn wax ñu ñëw daal waaw saa ah est ce que nag bi waaye nan dem waaye ah, ana moor nan jàll waay nag bi de xam naa jafe naa gis de fekk na moom nag booy yi la ñuy seet. ndeysaan musaa agsi nag dafa ni leen waaw nag wii mooy wiñ doon seet ana si mu ne ko maa ngi nii mu ne ko ne sa kilifa gis naa papa dafa wàcc liggéey waaye sama yaay laa fi nekkal fekk na malaaka waxoon na ko bu yàgg ni ko buñ ko dee jënd bul nangu mukk na xaalis ngeen di jox da nga leen naan ne rend leen nag wi ngeen fees ka lal der bi peese yàpp wi bu ngeen peese yàpp wi kilo yi nga xamante ne moo génn ci ndawal gi loolu ngeen may solol or ba mu mat ñetti yoon ak wurus ñetti yoon ngeen koy sotti ba mu fees del trois fois loolu laa jaayee nag noo ngeen bàyyi sama nag góor bi dana xam ne moo leen gën sës moom itam comme dañ doon <laughs> dañoo doon jéem a jaay yeewu waaye dégg nañu bu rëy waaye comme gëm nañu Moussa Moussa xool leen ñu xool Moussa Moussa leen acca amul taxawaay acca jël nag wi gis poids ci poids nag wi léegi nag ci diisaayu or ak ci xaalis ci lañu jënd nag wi ba ñu ko jëndee rendi ko peese ko natte ko ba mu trois fois walla cinq fois ñu jox xale ba xaalis ba ak or ba xaalis ba mujj nekk xale bu riche nekk xale boo xamante ne nii opérateur économique la mujj a nekk boo xamante nii lépp lu waay di def di ko tàggu lu waaye di organiser dinga ko ko yëgal si ñu amee surga ñëpp nangul ko ndax teraanga ji ko yàlla mujjee teral ci ci ci mujjug dundam ndax na euh, nangul ko mu nangul ay waajuram mbokk yi gis nga. xale bu sonal sa ñaari way jur li muy jëriñ lii rek mooy lii rek li muy jëriñ xale bu sonal ay waajuram lii rek lay jur tedd fii tedd fa nu jëm xale day toggal say sonal ay waajuram xale day nangul ñaari way juróom xale day wut ñaanu ñaari way juróom xam nga ñaanu way jur ci la gaañi di rawante waaye képp ku la raw ñu gis ni mi ngi la raw ci ñaani way jur yàlla boo nekk koo xam ne gisatoo si ñaari way jur bul sonn mukk dootu ko dab bàyyi leen xel waay jur yi xale yi sut nag boo demee ba commencé jàng commencé am yenn niveau yi wala nga dem ba commencé am yenn euh, xame yi nga commencé génn sa xel commencé nàcc foofu ñu dévier la day yomb trop waaw ñu dévier la day yomb lool ndax lañ lay bëgg a gëmloo ni la sa yaay jigéen rek la te jigéen amul xel waaw sa yaay jigéen rek la te jigéen amul xel du tee cër ba nekk fa rek jox ko cër ndax ridallahi fi ridal ni ngërëmal yàlla mi ngi ci ngërëmal ñaari way jur loo baax baax baax soo amul ngërëmal yàlla sa mbaax du dem fenn kon di leen tàggu way jur yi di waxtaan ak ñoom wàcce leen seen wàccuwaay ndax way jur moolul foowukaay moolul caaxaanukaay kenn du fooy say wayjur ñu da ngay fonk sa ñaari wayjur bañ ko yemalee kenn bañ ko dina la kenn xam ne lépp lu waay di dagaan ci àdduna li ci gën a gaaw nga am ko mooy am sa ngërëmu ñaari wayjur la sa yaay gërëmee rek nga am li nga bëgg waaye keneen ku la mën a gërëm te sa yaay gërëmu la sa baay gërëmu la ah mën ngaa sonn de waaye doo am mukk li nga bëgg lu jar a bàyyi xel la mbokk yi loo jaar a bàyyi xel surtout nag xale yi na ngeen bàyyi xel waajur yi ajuma ji passé maa lay wax ni la nit ku ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi ni ko bi sallallahu alayhi ni ko sama yaay ak sama baay ku ma ci war a topp mu ni ko ummaka mu ni ko dama ni sama yaay ak sama baay ku ma ci war a topp mu ni ko ummaka sa yaay ba muy ñetti yoon mu doon ko suma abika nga doon ci teg sa baay kon yaay mooy jiitu baay doo a ñëw ndax yaay coono bi mu am ci yow baay am na coono waaye nag yaay ëpp coono ndax ëmb juróom-ñeenti weer rek mbokk yi dafa doy fitna kon nag yaay jii mat na yaay yaay jii nga xam ne mooy yaayu Eliyaab yaay ju mat yaay la ndax ba ko yaay ja dénkee ba nga bàyyi ba jëkkër ja ba nga jëkkër ja dénkee nag wa mat gu mat sëkk la ca def mat gu mat sëkk la ca def kon nag doom yaa ngi rawante ci yaay yi amul secret il n'y a pas amu fi du ñaan gu ñuy joxe du dog bu ñuy def mbir mi ci nangu la nekk bu ñu leen xasee ni nangu amul fii nangam nangam nangam ba tax ngeen gëm ko du ngeen dem fenn maa seetaan ci télévision bi. man nii maa ko seetaan benn débat bu ñuy def jenn jigéen ci féministe yi la bokk daal ne ñetti bee yi dañ cee sonn biir boot bàcc biir boot bàcc neen dañ cee sonn dañ cee tay waaw jigéen bu biirul bootul bàccul lu fi mécceem yàlla moo leen wax ngeen tabax àdduna bi walla yàlla moo leen wax ngeen wut ay pont wala yàlla mu leen wax ni ngeen fexe ba lii ñuy liggéey ngeen ngeen ngeen bokk ci yàlla sant leen ko góor la ko sant ba pare mu leen di teral moo tax boo gisee ustaas yeeg imaam yi seen wax du mën a dëppoo ak waxi nit ñi fii ñuy waxee mooy fii yàlla lay waxee nit dem bu fekkee yow yaa ngi wax ci xalaatu Occident wala ngay wax ci xalaatu ñi noonu lislaam nga defee loolu mooy civilisation da dem ba da mujj taxaw doo xam foo jëm. mooy yi bari yi nga fiy dégg dañuy yëngal benn mbir ba yàgg ñu daan bàyyi mel na ko mel na mel na ku ko fàtte nekk boobu ñu ngi lijjanti financement bu ci dem di wëlbatiku nag parce que avortement médicalisé bi ba léegi ñu ngi ci avortement médicalisé bi ñu ngi ci planning planning familial bi tey la gën a dëgër feex nañu ba am seen ustaas yu leen cay waxal dañoo lekk wala lekk ñu ñoo xam waaye nag kàddu yàlla moom genn la kàddu yàlla genn la bokk ci coow li xam li ko gën bokk ci coow li xam li xew ak gën yow mii di imam wala yow nga def ustaas ñu lay wax loo fexeel ba xam li xew bala ngay toog ci tele di wax an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faaltum nadimin wala ngay àtte loo ne xamoon lu mu doon wala ngay dëggal loo xam ne xamoon lu mu doon fekk na sa noon noonu lislaam moo taxaw di appuyer loolu nga taxaw ca kon yaay ju baax a ngoog lislaam daal wax dëgg yàlla am na référence yu bare bare bare bare waaw boo xoolee ci aajara dangay xam ne mu mel nga xool euh, sunu yaay yi ñu am fii ci àdduna bi fii ci senegal nga xam ni yàlla day maye ndax aajara kat màkk gi ngeen dem yéen jigéen ñi demi umra ka dem Dubaay di dellusi dëkk booba jigéene ko sanc yàlla barkeel dëkk ba kon màkk ku fa taxaw li nga war a jëkk a xool mooy ndeke sama nawle bi doon def lii di daw safaak marwa xeeri kese amul courant amul ndox amul dara sa jëkkër ne la dëkkal fii dama ni man mii di jeeg taxaw fi war naa bu ma ñibbisee mu tuubal sama jëkkër yeeslu ci moom xam ni kat mbir yaa ngi ci ngërëmal jëkkër bu kenn foye kon yi fi àngoog xale baa ngoog xale ba nekk na kuris bari alal mel noo xamante ne kenn xamul nu mel xale ba ñoon joxoñ xam nga kaasal sax Qur'an ko faran tuutee tee rek euh, kéefër ne maanaam ñàkk nekk kéefër tuutee tee ñàkk nekk kéefër ñàkk dafa metti mbokk yi ñàkk baaxul ñàkk baaxul bari dañuy ñàkk ñàkk ñàkk mujj maw seeni kër ba mujj tilima tilima tilim ngir gore ak toog bañ ko la xamal dara ba nga mujj soppeeku ngir ñàkk goo ñàkk ak ñàkk dem ci nit ñi ba ñu mujj la tam ab demm mu ngoog waaye nag teraanga nag ah teraanga ju am na solo xale baa ngoog de waaw Iliab day tubaarkal macha allah ndeysaan maa ngi doon nettal rek euh, waa banu Israil ci noonu nga xam ni noonu la yàlla mujj ak ñoom te alquran di ñu nettali fee bi alquran nee na nee na fa sabahuha fa maa kaadu yafaluun mujj nañu jël nag wa rendi ko waaye tuutee teere duñu ko def lu ko lu tax mooy eh, dafa cher na ko dafa cher ngoog waaye nag dee ah, jaral na leen ko <laughs> moo taxit fa la moom la alquran di wax nii fa qulna idribuhu bi baadiha kazalika yuxyi llahu almawta wa yuriikum ayaatihi laallakum taaqiluun alxuraan nee na ñu rendi nag wa ñu jël lenn nag te ciru nag wa ñu dóor ko ca kaw nag wa nekki noonu yuxyi llaahu lmawta noonu rek la yàlla di dëkkale ku dee wa yuriikum yàlla dañ leen wan ayaatihi ci kéem ci ay kéem taanam loo xamante ne yéem na leen la laallakum ndax kon léegi taaqiluun ngeen jëfandikoo seen xel lu yàlla bëgg wax foofu mbokk nit ku dee nga jël lu dee dóor ko ci lu dee moo koo ko dekkiwaat mu ne xam ne yàlla mën na lu ne loolu rek li ci yàlla bëgg jàngal rey nañu nit ki ñu rey nag wi muy ñaari néew ñu jël ca cër néew bi dóor ko ci néew ba leen néew ba dekkali ko la'allakum ta'qiluun kon nga xam yàlla mën na lu nekk mu ngoog mu mel ni boroom xam-xam yi woote nañu nañ ci ban cër lañu dóor nag wa ku mel ni doxaak moom nee na lamiñ wa lañ ci dóor lamiñ wa la ñuy jël dóor ko ca kaw amil ndiga moom la euh, xuseynu ibnul fadl moom nee na li doxaak wax ci loolu la ànd ndax lamiñ moo gën a yenu maanaa euh, donte nag am na ñu ni geen bala waaye lamiñ moo gën a yenu maanaa ci wàllu wax booy xool ci wàllu bayam xam nga ni jël aw lamiñ dóoru ko ci luy dund loola wax lamiñ mën na ko xel mën na ko nangu ñii nee nañu pooj bala pooj bi lañu jël lupp yi lañu jël dóor ko wàcc ñii nee nañu nopp yi lañu jël dóor ko wàcc waaye daal euh, ba ñu ko dóoree nag wa rek dafa dal ni bërët moom néew bi dafa ni bërët daal di xool gaañ ñépp daan noyyiwaat daay waa lii la lii la lii lan la la ndeysaan euh, amil daldi ni lu ngeen di lijjanti kan moo ma rey démb ñu ni ko waa loolu ñu jaaxal ñoo yow ñoo fanaan loo reer démb ñëw dikk fekk nga dee loolu ñu jaaxaloon mun leen naadaab mii moo ma rey moo bàyyi ba ma génn ci fajar gi di tuur ndox dellusiwaat mu kar ma masqué kagulewu rey ma daal di may sànni yamul foofu mu yóbbu ma ca quartier sàngam bàyyi ma foofu pour man taqal waa quartier ba ngir dëkk bi di xeex waaye moom mi moom a rey tere dañu wax loolu dafa wax loolu rek daal di deeyaat waaw moom dafa wax loolu daal di faatuwaat ne ko fa sax di jëmalewaat bu kenn xamul mu mel nekkoon gis nga dekkal ko faatu euh, lu am solo la dekkal ko faatu ñoom dañoo dekkal euh, moom moom Moussa dekkal na euh, euh, mbokk moom la yonent yàlla isa alayhi salaam mus na ànd ak taalibe yi ñuy dox ci boor yaman noonu di dox di dox di dox ba yàgg mu la di gis benn bàmmeel boo xamante ni suuf si weex tàll la beeñ bu rafet lu neex a xool mu ni euh, taalibe yi ndax xam ngeen ban néew moo tëdd fii taalibe yi ne ah loolu de ñun xamuñu ko mu mun leen ki tëdd fii de mooy saam Cham doom yonent yàlla nuux la te gaaru yonent yàlla nuux ko bokkoon na ca ñu ni ko waa doo ko dekkal nu wax ak moom laaj ko ba xam mu daal jël yet ba mu yoroon rek moom Isa dañu ci beñ bi dañu ko xum bi isnillah ci kattanu yàlla ndeysaan mu daal ni muut muut muut muut dal di jóg tax répp ak suuf weex tell ak bi jaaw laa ilaaha illallaah Isa ni ko maa ngi lay laaj ci kattanu yàlla sa bijaaw bii bi ngay génn àdduna moom nga moom nga deyaale woon mënu ko déedéet bi may génn àdduna waxambaane woon laa bu toll ci fanweeri at ak nangam karaw gu ñun kukk laa deeyaal rafet bay bëgg a dee jantal mun ko lu tax nga weex tàll nii mënu ko tiit rek tiit yow man xiyaam bi nga mën a jógal ci kàttanu yàlla dama defoon ni àdduna buuf te mu wal dama defoon ni bis bi ñu yàlla di dajale dafa jot ma tiit defe ni tey laay tey torox loolu ma tax a weex laa ilaaha illallah musa ni ko te bokkoon nga si gaalu yéen teel noox gi mu ni ko waaw mu ni ko lan moo tax ban màndarga ngeen amoon ndax fukki guddi ak juróom-ñaari bëccëg ci ngeen nekk ci kaw ndox mi dem ba gisatu leen garab gisatu leen dara mu ñul kukk naka ngeen xame ni euh, ndox mi ngiis na mu ne ko ni nu ko xame day yàlla dafa yónni euh, picc moomu ñuy wax tan ni ko demal nga xool ba xam suuf si wow am ndéet tan yaayaaru moom tam ne cirib wàcc ci suuf au lieu kontaan ñëw rek daal di joxe kii bi waaye mu ñëw topp medd mi topp medd mi rek di lekk di lekk ba fàtte ni dañ koy yónni woon ci la ñu mu dana yónni mooy pitax pôle yooyu ñu yéen nga koy tuddee pôle ci la yàlla nuux yónni ñu ko demal nga xoolal ma ba suuf fernaam déet pitax moom moo wàcc bi wàccee nag daal di dagg ci fleur yi euh, taqal tànk yi suuf ak sàll wi daal di naawaat ñëw daal ni suuf si fer na euh, gis ngeen sax sama tànk ni mel lii yëpp ay ban la loolu tax picc moom dafa jubóog nit bi tax ñaari foog fekk day dëkk ci biir nit ñi mu nekk picc mu ñu sopp moo xamante ni tabarkalla dañ koy teral xale yi dara ñoo koy fitnaan léeg-léeg waaye mag ñi dañ ko sopp lool tànn nag moom du dëkk mukk fu nii dem ndax yàlla ko rëbb ndax kilifa ko toll ni wax yónni la nga dem topp medd ma yal yàlla yokk xéwal yal na yàlla faj yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Euh, maa ngi yemale fii kàddu gi di gërëm nag sama mbokk yi nga xam te ñu nga la ca Strasbourg la famille Bathily macha allah di nuyu ñëpp nag ñoom xam nañu ma xam ah xam nañu tabarkàlla kon nag maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag di nuyu Pape Amady mbokki nekk fële New York suñu bokk yu baax yëpp ku ci ne maa ngi leen nuyu di leen jàmm yal na yàlla def jàmm ci réew mi faj aajo yi dégg si saafara jàngoro yi yal na yàlla xiir ci boppam aar ñu làq ñu fa yàq yi ko yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.